tey am nañ ci confiance ci président de la république am nañ aussi confiance ci si ñu jiital mu nekk Abdoulaye Timbo au niveau de Pikine que mu nekk Amadou au niveau de la région ak aussi mu nekk Mimi Touré au niveau national vraiment seen liggéey rafet na mais loolu yëpp dañ koy delloo njukkal président de la république ndaxte li population yi bu ñu apposé seen signature dafa mel ni benn cachet la ñuy def pour valide bi nga xam ne moom la président di liggéey ngi ndokkeel population yi parce que nag ndokkale bi ndokkale bi ñoom ñoo ko moom yéen ban taxawaay nga am ngeen ban diwaan ci Pikine APL Bokk Yaakaar ban taxawaay ngeen fànn foofu jamono loolu jàkkaar naa ne feeñ na ci parrainage yi feeñ na également ci élection yi ñu génn mooy élection locale yi population yi renouvelé nañu seen confiance ñi nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar yenn maire yi nga xamante ne si nekkul woon suñu loxo euh, dem nañu uti ko bu ci mel ne maire jiite Thiaraka bi may jiite tey am na yeneen maire loxo conservé nañ ko lu ci mel ni donc day wane ni rek ne population yi adhéré nañu ci politique gu président Macky Sall adhéré également ci politique bi nga xam ne responsable Pikine yëpp dans leur ensemble ñu ngi koy mëne et loolu dina feeñ incha allah rabbi ci élection yu ñu jëm élection législative